Mataar Joxaane bu Maar laa tudd Mataar Joxaane mooy xale bu baax bu yaru jàng am diine am ay diplôme tubaabam fa mu doon jàng tubaab mooy meilleur meilleur élève ñëw jàng alxuraanam dem gànnaar jàngi dellusiwaat waaw meilleur meilleur élève de Sénégal la dégg nga ñoom jàngi gànnaar diineem jàng alxuraanam dikk ñu andi fii mu ubbi daaraam ñu bëlëf bëlëfal ko yóbbu ko yor ay école am yori jabaram yor ba man mii di ndayam ak i rakkam ñu ñëw jàpp ko nag ci dara ñëw nag jàpp ko ci dara. di ko jiñ xaalis sa xaalis biñ ko joxoon nañ ko doon tabax tabaxloo daara gisul dara moom ba mi dem ni seer fekk nañ jox ko financement bi mu war a bi mu war a euh, tabaxee daaraam ba pare biñ ko biñ ne jàpp nañ ko lañ dem këram tel teli mook jabaram nangu xaalis ba ca jabaram denc ñu wax leen ñu ne xaalis baa nga tërësul loolu lañ wax ca Daouda Diallo ci boppam moo taxaw ne maa ko dégg ci télé bi jàkkaarloo ak moom mu ne ma dañoo dañoo jàppaloo ay terroristes ñoo fay xaalis jàppaloo nu ay terroristes ku jàpp terroriste nag ñu fay lab xaalis bul jàpp bul jàpp doomi jàmm donc am na ñuy doom am nañuy jarbaat ñun suñu doom am nañ fu ñu féete woon Macky Sall ci boppam nag laay bëgg a wax. nañu bàyyi sunu doom yi ñu dellu ca seen daara jàngale seen diine ay diine lañ yor diine lañ yor yor seen njaboot yor seen i yor seen i baay tiital tiital nañ seen i bokk feebarloo seen i ndey maa ngi nii yàq derib Matar Joxaane ca deful waxut lu dul jàngale xam. dem jëli ji ay sénégalais dem jëli ji ay sénégalais Matar Joxaane bi mu demee ni seen jël fa ay sénégalais soowe leen ñu ñëw fii. dañ koo waroon na félicité waaye kenn war ko woon a tëj ah. dañ ko waroon a takkal mitaay ay doomi Sénégal lañ neree na rey Matar Diokhane dem jëli leen andi leen fii ca xamu leen xamu leen xamu leen mu dem jëli leen andi leen fii kon nañ ko war na félicité takkal ko maanaam waaye ba nun ko ne ràpp ci kaso ndaxob xaalis ma ne ko ndaxob xaalis maa ngi nii di feebar di ndey mënumaa taxaw mënumaa toog nañu bàyyi sama doom ji daal nañ ko bàyyi ci nii baa ñu bàyyi ko ci naa nañ ko bàyyi ci nii baa ñu bàyyi ko ci